weesu ngir waxtaanee euh, loolu yëpp nag euh, ak cosaanal Mali euh, dañuy dalal tey Alpha Wali Diallo nekk expert en relations di def ci itam wàllu gëstu xelam màcc lool ci Afrique ak réew yi rawatina ci wàllu politique ak yu ci ajo ñu ngi lay nuyu sëñ bi jàlloo di la gërëm ci disponibilité bi ngir waxtaan ak ñun ci lii ma fi junj. maa ngi si ñuy déglu waa rajo bi euh, di leen ñaax ngeen euh, loo leen doon def ngeen yokk ko yaa ngeen di def mhm. jërëjëf Diallo alors ni ma ko waxee Mali euh, mi ngi ñuy bëgg a tàmmal coup ndax bi am euh, barki démb talaata bi ñu weesu ci kaw Ibrahima Boubacar Keïta mooy ñeenteel bi waaye bala ñuy ñëw ci coup yooyu ndax mun nga ñëwal ci Mali euh, réew ma ni mu tëddee ak surtout ci seen wàllu cosaan ndax xëy na am nañu démb goo xam ne mooy expliquer tey nii yëf yi tëddee fa ci wàllu politique. alhamdulilah man li nga wax dëgg la parce que mbir bu amee. boo ko bëggee saafaraal da ngay xool cosaan li lan moo indi loolu yi comme euh, ni nga ko waxee seen cosaan bokkul suñu cosaan ñun suñu ànd ak suñu àndandoo ak ñoom euh, mooy bi ñu defee suñu fédération bi amul at amul ak boo xam ne nii euh, problème yu bare lu juróon problème ci gis-gis. gis-gisu Afrique gis-gisu euh, moom sa bopp Afrique boobu euh, boobu président du conseil du Sénégal Mamadou Diallo woon. Hmm. Euh, Modibo nekk le président de la fédération. ñoom ñaar bokkoon waaw ñoom nañu gis-gis. nit ci lu ñu doon waa fédération bi. Hmm. Senghor moo def pour lépp mu yàqu parce que France d'accordul woon ci principe boobu d'autant plus que ni. Euh, Mamadou jaa ak euh, Modibo dañu amoon ay de forte personnalité. ñoo hmm. xam ne ni donc nañu taxaw ak tubaab bi ni ko non non yemal fii hmm. donc loolu tax ba euh, fédération bi tas ku si nekk jamal sa bopp. te boo xoolee ñaari réew yooyu dañu am parcours boo xam ne dafa xaw a doy waar parce que Modibo Fale Euh, nekk na fa président ba Moussa Traoré euh, proche ko koo xam ne jege woon na ko tuuti tubaab yi dugal ci xelam. parce que gis nga coup ba bàyyi leen dini nii coup yi dafa bare Afrique. Hmm. booy seet coup d'état yëpp yi fi gën a bare mi ngi am bi ñuy soog a jël suñu indépendance. d'accord parce que parce que dafa amoon ay bañkat yoo xam ne bëgguñu ko mbir bëri. mooy ñu ñu may la golo tey ceen bi donc ñi nga xam ne gisoon nañu loolu di ko xeex yëpp ñu leen di tudd tey di leen sargal nasaraan bi dafa def ay pexe ba ñu xam ne nii fa ñu nekkoon jóge nañu ñun Sénégal loolu dal nañu fii hmm. crise bi ñuy wax de moom Mamadou Mamadou Dia ak Senghor ku gestu di nga xam ne fo dëgg dëgg dëgg euh, Senghor affaire affaire truand la def affaire njuñ njaaj hmm. voilà c'est non ça c'est la vérité historique du du te euh, ba léegi nii ah kenn mënul kenn mënul la wax lan la Mamadou Dia def Senghor waaye Mamadou Dia moom balaa ñu koy suul man dëgg naa mu ni sama diggante ak Senghor dara amu sama xarit na moom ma dugal si politique wóolu na ma ndombo tànk moom moo ma ko jox kooku baal naa ko amul benn problème waaye lenn laa ko mënul mënul baal ba keroog yow mal xiyam yaa ngi dégg bi hmm. ñu ne ko lan la mu ni décision bi Sénégal jël en 63 moo ñu jural tuuxi duna yi yëpp. mooy ban décision. mooy décision wu jël sa indépendance si ni ko France bëgg. Hmm. c'était ça le problème. et comme moom c'était il était plus fort que Senghor plus populaire euh, président du conseil Senghor il avait le euh, honorifique euh, Mamadou Dia dem na ba ni Senghor xoolal yow yaa am boo bëggee bu fekkee ni dégg naa yi ñuy wax ni yëpp am ma jox la pouvoir bi Senghor ni ko yaa ma ko yaa ma ko gën a yeyoo bi ñu ñëwee di ko ni Senghor mu ngi dox sa gannaaw dalee leen ni mënuma gëm loolu parce que euh, euh, coup d'état bi ñuy wax ku amul pouvoir moo koy def mais man maa yore pouvoir bi donc euh, ak Mali ça s'est passé la même chose hmm. Modibo bi muy dem ñu bëri jooy nañu bi ñuy ci fédération du Mali bi ñu génnee ci fédération bi ba pare ñu hmm. coup d'état Modibo hmm. am na ñu bëri Mali ñu jooy ndax lan. parce que baaxuloon parce que ñi ngi doon tabax waaye yoon bi ñu doon jël dafa mel ni ñoom Kwame Nkrumah ñu. d'accord arrangé wul France. arrangé wul woon France te Modibo dafa jël fédération bi bi mu jeexee loolu moo gën a peut-être naqadi français yi dañu jël rek toute française yi nekkoon sur le sol malien yëpp daw leen dàq. Hmm. loolu ba opération Serval bi. français yi mësuñu yëpp malien yi te gis nga booy xool tirailleurs sénégal yi dañ leen tuddee sénégalais yi mais yi si ëppoon de am na nationalité yu bari voilà donc ñooñu dafa euh, dañu tàmm bañ xam nañu seen euh, xam nañu li ñu bëgg kon kon mbaa du France loolu moo taxoon bëggul euh, Sénégal ak Mali def fédération xëy na balaa ñuy influencer Sénégal mi nga xam ne tegoon na ci loxo déjà c'était ça ok c'était ça Mamadou Dia luñ ko yekkul amul c'est un dem nañu ba jaxanse ko kilifa diine yi fii mu ngi ci bindam mu koy mettitlu ndongo daara jàng alxuraan taalibe cheikh dem nañu ba jaxase ko te fa dëgg dëgg dëgg sa mbokk jigéen ñi na leen laaj euh, euh, parenthèse laay def rek mm-hmm. Mamadou Dia naka la doon xeexee jigéen yi jaay seen mbokk soixante soixante trois day def raaf mm. kum si tasanteel laaj la lu tax ngay def lii boo ko ko waxee bu ko mënee saafara mu saafara ko bu ko mënul saafara mu may la jëkkër d'accord wala prison ah xam nga kooku ñu ngi doon éduquer nit mm-hmm. parce que boo jëlee indépendance loolu dafa gis nga Chine lu tax tey jii Chine ci pandémie bi ils sont disciplinés parce que sënjël benn ba trajectoire bi ñu éduquer peuple bi loolu dafa am solo bu ñu jugee di bu ma déggee Séné les Sénégalais sont indisciplinés damay reetaan damay ni waaw yow ñu yar ñu si indiscipline te te ñu si indiscipline injustice di ñu ne frôlé di loolu ku gis nen ni balu tengse la wax ah, mi non noonu rek lay mën a continuer mm-hmm, mm-hmm. ba tey ji suñu dëkk yëpp ñu confronté gis nga ressentiment anti français bi am si suñu mm-hmm. région bi yëpp lenn lalu ko li ko lal mooy golo dafa daan bay baabur di dund ñu dem ci jamono ba technologie yi am nit ñi gën a yeewu gune yi ñi nga xam ne seen maamaati maam la ñu naxoon seen bàyyi ñëw dox si loolu ñu ñëw commencé xeex boobu génération boobu ñooñu loolu dootul am dinaa la wax soxna si mhm. ci histoire man dama bokk ci kuréel yu bari du ma tudd tur am na fi euh, une sommité sénégalaise damay liggéey moom. Mhm. sommité. koo xam ne fekk na Senghor fekk fa kabax fa kàlla bu dee mhm. xam-xam. ak suñu biir am des jeunes yoo xam ne tabax fa kàlla aussi. Mhm. Ah, dañu dañu mën naa la wax turu jeune bi. ndongo ndongo Samba xam ne ci affaire éco économie waaw. mës nañu def benn benn panel ci waxtaan am beneen paa bi c'était le professeur Kassé hmm. qui est un éminent jàngal ñu ñëpp tabax fakal ku fi wax économie fii si dëkk bi il faut nga cité ko hmm. ñu am benn réunion en benn waxtaan bu ñu doon def euh, journaliste yi ñëw ñoom ñoo nekkoon ci panel bi ak ñeneen pour mais euh, paakase bi mu waxee ba pare xam-xam génn fa tabax fa kàlla macha allah ndongo ngi toog moom beneen gis-gis la am. Hmm. ci xeex bi nit toog gis nañ bi kale di wax ngi gis conflit générationnel boobu. waaw. xam na ni papaam la wala maamam. Mm-hmm. may bokkuñu gis-gis ci xeexu éco bi. Mm-hmm. parce que boo xoolee ñoom Guy Marius Sagna ñoom ñoom da leen di comprendre seen jamono la. Mm-hmm. jamono fippu. jamono fippu mooy euh, yàgg ngeen masla ak tubaab bi te loolu la ñu interpellé pas bi après. jigéen. activiste bu rëy man maa ko waxee tesaan ni ko non euh, de mag dañ koy war mal boo yi déconné nii yéen ñëpp vous êtes complice hmm. indépendance yi ba léegi bu fekkee lii mi ngi dox ba léegi ñii dañ leen ko yombalal te comme yaa leen di kilifa yi a ah, bokk ngeen si complot bi. xam nga kooku il faut nga am dégg-dégg. Hmm. dara waaw dañoo tolérant woon. voilà xëy na face tubaab yi. voilà on a apaisé. J'ai compris la position des gens. Mm. je connais pas kese li ma doon parce que fekkee naa man leen du noonu déedéet parce que gis nga sa njëlbéen euh, Mamadou Dia biñ ko tëjee fii. Mm. ba pare aucune voix dissonante ne s'opposait à Senghor ñëpp exilé wu. Mm. ñii dem Mali ñii dem Guinée ñii dem Côte d'Ivoire tubaab di doxale nu ñu Mali c'était la même chose. on a pris un euh, euh, sous-officier de l'armée jaxase ko ak euh, l'icône de l'indépendance c'est-à-dire français noonu lay def da toroxal ci sa kanamu réew. Mm-hmm. te Mali boo seetee ñii sax se réclame beaucoup plus de l'héritage de Modibo que des présidents yi fi aw. Mm-hmm. ñoom ñoom ATT Alpha Oumar Koné ku la wax. Mm-hmm. Modibo mooy se réfère. mooy sa repère mooy se référence ñun jeune bi fii Sénégal fii lu tax building bu bees bi hmm. ñu tuddee ko building Mamadou Dia. dañuy bàyyi ba mu dee. Hmm. ñu xam ne waa ji li mu doon xeex dëgg la parce que question fit la maliens yi ma delluwaat ci ñoom. Hmm. dañoo am fit te Moussa Traoré. noonu la téye changement mi ngi commencé jaxasoo tubaab yi sommet de la boole boobu. Mitterrand nga xam ne dafa woon joxoñ président yëpp ni leen tey ji il ngeen def multipartisme wala dootuñu leen dimbale dootuñu ñu leen tuuti dafa jël baakaar sam ni bon man maay dem man xaw ma lii parce que ak dafa am seen deret ñoom. Hmm. mais bi mu demee on a activé une situation sociale chaotique comme ni. ba jeunesse bi génn. ni ko non tey jii euh, jeex na les militaires ont ont riposté ça fait nga euh, ñoom deretu malien bu tuuróore hmm. euh, dëkk ba ku si nekk xam nga histoire suñu jaataat yooyu ku si nekk dafa mel ni sa butite génn daal hmm. ma ci wax ji donc c'est à peu près ça ku nekk day gis sa bopp ci ci loolu ku nekk day gis sa bopp les coups d'état au Mali te barewul ñeent la booy xool histoire bu Afrique am na dëkk yu stable tey ji hmm. mais euh, ñoom chaque année daan na am ñaari coup d'état coup d'état waaw hmm. Nigéria bi Ghana bi hmm. mais ñoom dem nañu ba régler loolu parce que xam nañu ñan ñoo doon organiser coup d'état loolu lañ jëkkee régler ñun tubaab bi dafa ñurxu suñu biir ba nga xam ne di matt di ëpp mënuñu gis loolu mu ñuy jotal ay tolof tolof yu ni ne waaye euh, euh, crise malienne bii mhm. boo koy seet euh, deux mille la xew meññ waaye nit ñi dañuy fàtte gis nga ATT mhm. bi muy nekk président moo président France yi neexoowuñu woon mhm. xam nga ATT militaire la am fayda passé bu ñu taxawee ni ko lii ak lii di nga ko def mu ni leen sama askan d'accordul si hmm. parce que dañuy fàtte que ni ATT a été un libérateur comme Malien yi li mu jël pouvoir bi gars di ko kaas di ko tur mu ni leen nous ne sommes pas là pour le pouvoir on règle une situation que les politiciens ont été incapables de régler bu ñu leen bàyyi dëkk bi tas hmm. bu ñu régler loolu on remet le pouvoir aux civils Mmh. Dans l'histoire, c'est ce qui s'est passé. Il a remis, il est retourné dans l'armée, il y a eu des élections, Alpha Condé a gagné. moom bi mu demee ba nit ni yow war nga nekk président dafa démissionné armée mm-hmm. ñu ñu nommé ko après président successeur u euh, Alpha Omar Konaré moom bi muy président su Mali Euh, Mali amul woon au début amul woon problème de djihadiste ak yi mhm. bu ñuy fàttaliku djihadiste yi ay Algérie la am Algérie la jóge mhm. te lu ko jële Algérie rupture du processus démocratique parce que ça n'allait pas dans le sens des intérêts des occidentaux 91 92 ñoom fils Abbas Madani ak ñoom mhm. nañ élection ñu def élection ñëpp demandoo le parti au pouvoir ak ci mais fils compté guñu moitié bi sax gars yi xam def nañu razzia hmm. c'est la communauté internationale ñoo wax autorité turque arrêté le lii ne donnez pas le mauvais exemple parce que ñu ngi doon xalaat printemps arabe yi hmm. pays arabe yëpp bu ñu fa defoon élection normale tous les partis islamistes yi ñooy gagné lépp c'est la triste vérité dafa am chapeau de plomb boo xam ne moo tax damay ni communauté internationale c'est une dibuterie c'est une filouterie intellectuelle et intérêt la am bu leen neexee ñu nangu bu leen neexee du ñu nangu li la koy firndeel tey hmm. euh, problème euh, ci beneen partie ci euh, monde bi am na problème Biélorussie bi nga xam ne après élection yaa ngi dégg Europe ñëpp a ngi wax reconnaître hmm. duñ seen élection yi président ba toog jàpp fi mu jàpp ñi leen yebu leen ma sax communauté internationale dina respecté kooku. Mhm. mais gis nga Mali. Mhm. xam nga militaire yi dañu saafaraal jàng jàng ko. Mhm. Ah, Mali yi ñi ngi doon day mi muus. ñi ñi weñ. budul islamiste yi au nord conflit yi nekk ci biir vers le centre politiciens yi mënuñu juboo seen biir. y une crise économique profonde au Mali mbas bi ñëw politiciens yi opposition comme pouvoir euh, toog di waxtaan waxtaan yoo xam ne boo koy seetlu ku si nekk sa intérêt ngay xool militaires yi jël seen responsabilité xoolal ni ñu commencé dal seen kaw dini voilà waru leen woon def li ah te te militaires yooyu sax situation Mali bi aussi euh, épargné wu leen ndax amuñu woon gànnaay ñi nekk au nord chaque jour ñu dégg ni leen terroristes yi di def parce que amuñu assez de moyens pour jàkkaarloo ak ñoom ils ont répondu à une injustice boo xam ne waa yow nga gis ku def coup d'état peuple bi génn di fecc xam nga fan laa ko mujjee gis hmm. Gambie Yaya Jammeh. Yaya waaw bi ñu ko fa jëlee xam nga kooku ñu fa jëlee lëmbaloon na nit ñi. kon kon kon est-ce que mun nañ ci jàpp ne. Euh, mhm. Ibrahima Boubacar Keita ute na ak yeneen ñetti président yi yi ñu def coup d'état peut-être dinañ si ñëw cas par cas mais euh, li ñu comprendre ci ñooñu mooy que ñoom arrangé wu ñu woon France. Bah, mais lan mooy différence bi ak IBK tey. ah IBK mm, France da ko parce que il ne faisait plus l'affaire de la France. ok mais nekkoon na seen. Euh, seen pion bi muy yéeg au pouvoir bi 2013. Euh, hmm. fa dëgg-dëgg ñoom da ngay xam seen passé et jeune la ñu woon il a il a milité dans l'international social. donc donc euh, dafa di ay la ñu woon France ak le syndicat des chefs d'État ils se connaissent. français yi xam na fi ñu leen di aw. IBK hmm. bi mu yéegee. Hmm. espoir la suscité woon. ci français yi booy seet fa dëgg dëgg dëgg dëgg li tax malien yu bare mere ko. Hmm. dafa meloon ni daf leen doon wan ni man France moo ma fi teg moo ma garanti woon. France ak le la France à travers la CEDEAO donc man lu ma neex lay def doomam di def li ko neex jabar ji di def li ko neex mu te keesu réew mi du def nu ko neex xaalis bu ñu war a jëndee gànnaay mu disparaître euh, ñi réew militaire ñu ngi ñu jubóo si c'est ça le problème. kon loxo France tamit mi ngi gis CEDEAO. déglul ah, ah waaw waaw. Hmm. waaw hmm. du ñu dajewoo ni dañuy def monnaie unique. Hmm. tuddee ko ECO. di si bay ñëpp d'accord si ñu si liggéey. ñu toog ba jëmm jamono. président de la président de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA parce que UEMOA nit ñu bëri li ñu xamul tubaab bi daf ko créer pour freiner développement wu CEDEAO hmm. huit pays francophones yi ñoo bokk UEMOA Alassane Ouattara keroog bi muy jël décision di ni léegi dinañu bàyyi CFA sax waaye dañ koy tuddee ECO. Hmm. ñi combine bëri moomul tur boobu du pays francophone yee mais comme Alassane Ouattara moom français yi ñoo ko teg au pouvoir en Côte d'Ivoire c'est de l'histoire mm-hmm. récente c'est la triste réalité mm-hmm. il est beaucoup plus loyal à ces gens qu'à la population ivoirienne qu'aux populations ouest-africaines ñooñu ñooy jaxasee Afrique de l'Ouest dindi nañu kenn Blaise Compaoré mm. li doon yàq di euh, France di ko defloo yu ñaaw euh, am na moo tax booy seet ba peuple bi génnee di ko dàqe bi mu dawee France ko jël si génne ko yóbbu ko Côte d'Ivoire hmm. Alassane Ouattara bu deful nank noonu lay mel moo tax gisoo ñoom ñëpp IBK biñ ko daanalee mais IB IBK gis nga militaires yi brutaliser ko gis nga ñu teg ko condition yoo xam ne nii respecté wuñ ko wala loolu mais xoolal président yëpp dañ taxaw ni non il faut ñu bàyyi ko tegaat ko président mais loolu dafa mën a nekk <laughs> xam nga dama dañuy dañuy dem ba ridiculer sa foofu ngay xam ne ay jeu d'intérêt moo fa nekk. Mhm. léegi lan moo dox digganteem ak France ba nga ne France daf ko lâché maanaam dañ ko bàyyi. non parce que il respectait l'agenda de la France lenn rek moo koy firndeel. Mhm. bi ñu defee accord d'Alger donc IBK dafa dem France dellu ci ñoom moom dafa bëgg def référendum. constitution. Mhm. pour inclure les accords d'Alger euh, dans les dispositions constitutionnelles mmh. du Mali gars yi liggéey si mais maliens yi seen bopp bi ñu ko xoolee dañu ni kii dafa mel ni dafa jaay normal yi hmm. tubaab yi di ko ni nag mais référendum bi jàll te comme tu avais la majorité si sa première élection au niveau de l'Assemblée nationale mm. def ko balaa muy am beneen élection parce que tu risques de perdre la majorité hmm. mooy élection législative li ñuy contesté ni waaw yi am te li koy firndeel hmm. élection législative dañ ko commencé le principal candidat de l'opposition ñu kidnappé ko Soumaïla Cissé waaw te bu ñu demoon parti am mooy gagné législative yi de facto nekk président assemblée nationale cohabitation lay indi te su Soumaïla Cissé dal leen compte même Alassane Ouattara hmm. looloo tax Alassane Ouattara bu demee Mali Malien dañ koy toxoxal parce que dañ ko nii ki nga xam ne moom la ñu am moom yaakaar yaa ko toroxal bàyyi ñu ak cuune bi c'est la vérité et bizarrement IBK bi mu bi mu daanoo rek Croix-Rouge commencé am accès di waxtaan ak euh, la ba mu joxe bataaxal pour sa waa waaw justement foofu laa bëggoon ñu ubbi parenthèse yow loolu doo ko expliquer parce que ñu bëri ñu ngi xalaat est-ce que nekkul woon complot ak armée bi est-ce que kan moo nekk ci ginnaaw euh, affaire la siise gis nga sa njëlbeen. Hmm. wax la dafa am ñoo xam ne dañuy taxaw di xeexal seen réew. am ñoo xam ne France daf fi nekk mais France y a des militaire militaires en France euh, au Il y a des forces militaires en Côte d'Ivoire. Bima. Mm-hmm. cest dire dañ lay tegal armée française ni la doxal ñun ñoo la garantir waaye doxalal li li nga xam ne mooy suñu intérêt. Mm-hmm. am yeneen dirigeants yoo xam ne dañuy taxaw di ni non loolu mënul nekk parce que li ngeen bëgg àndul ak li askan bi bëgg ñu ne la soit li nga bëgg li ñu bëgg ngay def wala ñu déstabiliser la. d'accord léegi yow cas Soumaïla Cissé da nga gis France ci ginnaaw. cas Soumaïla Cissé ni mu demee. Hmm. fa dëgg dëgg dëgg ci condition yi parce que dañ ko topp. il bénéficiait de garde rapprochée. Hmm. garde corps bi dañ ko mujjee rey. waaw ñi ko yow ko kidnappé ci zone de sécurité. Hmm. te bañ ko kidnappé ba léegi amul revendication lu mësul am Mali. waaw ñu bëri groupe jihadiste lañ ko foogoon mais euh, kenn revendiqué wul. xam nga euh, guddi lu ñuul rek ñu ni muus la. dañuy mm-hmm. jàpp ni maanaam li ñu doon téye suñu bàyyi noonu la ñuy mm-hmm. te ñun ñoo jàngandoo dans les grandes écoles am li jaas xalaat. ñu gis ni lii am na lu ci ñuul. Mm-hmm. te loolu taxul élection i continuer. Ibeka gañewaat. parce que ci élection législative yooyu dafa amoon élection référendum élection législative ak référendum boobu maliens yi dañoon mooy mooy bi ñu waroon jaare pour appliquer les accords d'Alger voilà parce que nit ñi les populations du tey la ñu commencé génn ba mu jëkkee tuut mais yaayu mais yaayu dem dem marche monstre à Bamako en rejet de ce projet de construction IBK daf leen chantage parce que France nee na ko non lii il faut mu jàll hmm. pour mettre fin à la tentative africaine de résoudre ce problème malien léegi léegi léegi léegi euh, France ban intérêt la am ci accord yi non c'est-à-dire la France a été à l'origine de la création du problème au Mali. nord du Mali mënuñu gëm ni seen solution dana fa gën a si seen loxo ce sont des voilà, d'intérêt et qui connaît l'importance géostratégique du nord du Mali de cette bande du Sahel mm. mais tu comprends ni mais France te lu dañ ko doon wax sax c'est un précaré waaw mm. kuy jël précaré France amul uranium lu tax ñu nekk premier producteur mondial d'uranium uranium Niger bii la ñuy sàcc ñun Niger euh, dañoo ndóol parce que France la mu koy jënde ñoom ñoo ko moom keroog bi chinois yi gisee ñoo ni leen France li mu koy jënde mën nañ leen yokkal ñetti yoon wala ñeenti yoon tànjaam mm. boo ko fa doon wax dañ ko daaneel noonu mm. la téye suñu réew yi waaye am nañu une génération dorée de chef d'état boo xam ne ñi ngi bañ te ñi ngi dégg loolu moo indi meli melo bi yëpp dans la sous-région d'accord léegi ñu ñëwaat ci la kon yow daal su ma la comprendre euh, tubaab yi peut ñoo ko teg loxo Soumaïla man duma dama déglu mm. un avocat malien qui fait partie du M5 Hassan Bari mm. avocat de plusieurs chefs d'État une chaîne guinéenne ñu koy interviewé mu ni leen gis nga Soumaïla ah man en tant qu'avocat mm. Soumaïla mi ngi si jàmm salaam ñi ko jàpp waxuñu ko mais xam mais du jihadiste yi moom ni leen mi ngi si jàmm ak salaam kenn reyu ko la maanaam. Hmm. parce que ni Mamadou Dia rek xam nga Soumaïla a été président de la commission de l'UEMOA. Hmm. mu jugee fa. xam effet néfaste bi Alassane Ouattara di jouer au niveau de l'UEMOA dama lay histoire ba mu jugee commission de l'UEMOA Malien yëpp ni kii moo war a nekk président Mali waaye c'est un bañkat la c'est un homme de gauche. Hmm. ku bëgg askanam ku bëgg Afrique. kon arrangé wul français yi. dama ni bi mu koy nekk ñoom Alassane Ouattara moo doon seen champion. ok ku jiital voilà ba dëgg dëgg dëgg dëgg parce que mais bi mu defee candidature am te ba mu newoon na Alassane Ouattara dama bëgg bokk ci. kujje bi parce que dama bëgg diriger Mali suba Alassane Ouattara ni ko dinaa la jàppale. Hmm. waaw yow yow voilà jeunes yu mel nii dañu soxla yow bi mu jugee président commission UEMOA. Hmm. di campagne ñu ah xaaral ma seeti Alassane Ouattara parce que am na lu ñu waxante woon noonu la ñuy defante dañuy jàppante. Hmm. bi mu demee Alassane Ouattara ni ko ni mais yow. bàyyil IBK dem yow tu yow da nga foog ne yow mën nga nekk président Mali mm-hmm. wàññi ko mais je te part de confident bu may la bi mu fay génn dafa jaxasoo il était déçu. Mm-hmm. ba pare IBK euh, di dooleel IBK contre Soumaïla ba Maliens yëpp gis ko toog a xool lépp li nga xam ne mënoon na empêcher la mu def campagne ba gagné. Mm. Alassane Ouattara dugal si loxoom c' la triste réalité. d' accord c' est comme ça que ça passe France noonu lay def day am ay pion. Mm. xam yow xoolal condition yi Alassane Ouattara ñëwee au pouvoir une forfaiture. ki doon bañ ñu ni moom moo def lépp ba jaxase ko le tàngaay di compagnie yóbbu ko TPI. Mm. TPI mi ngi nii tey jii deful dara. Mm-hmm. pendant dix ans dix ans yoo xam ne France lu leen neex Côte d'Ivoire moo fa am. mu neex ivoirien yi naqadi leen c'est la même chose Sénégal fi sax doon nañ ko lam-labe sam lan tooroo ngi bañ depuis un certain moment beaucoup de gens ne le savent pas mm. parce que c'est un homme de gauche Macky c'est pas un socialiste xoolal andi jëf la nekkoon donc si jeune am jeune bañ a ngi comme ñoom landi nee nag yeneen hmm. donc aujourd'hui am na ñoo xam ne lucidité ci président yi am nañ ko bu France Euh, ak seen président bu tuuti bi un gosse de rien du tout waaw mais ñun ay kilifa la yor mais booy bi taxaw ba gars yi ni ko non yemal fii ñu yem fii donc avec l'entrée d'autres euh, puissances émergentes dans la sous-région Maroc Turquie Chine Russie mais la France a peur te ce n'est pas que la France c'est la France e euh, l'OTAN le bloc atlantique ñoom ñoo ni lii te ñoom ñëpp Afrique de l'Ouest est devenue stratégique pour ñoom. Hmm. moo xamal la la CEDEAO c'est la seizième puissance économique mondiale. Mm. donc perte CEDEAO duñ du yomb. te gis nañu influence bi chinois yi commencé am Turquie yi am ko yaa ngi fi. ñi hmm. wax yi yëpp vérifié Turquie yi am ko fi Russie am ko fi mu néewoon dañuy séddoowaat carte France mënul ci dara parce que entre France bi l'empire colonial français amatul la France est devenue une petite puissance. Mm-hmm. sous le parapluie américain. ñun gis nga relation yi ñu am dernièrement ak États-Unis on a des accords de défense yoo xam ne ni nañ ko ak États-Unis dernièrement mm-hmm. mais soxlaatuñu accord de défense yi. alors léegi euh, professeur Diallo euh, ngir euh, xëy na jeexal ci Soumaïla Cissé yow mm-hmm. euh, lan nga gis ci ëllëgam comme tey IBK wàcc na te remarque bi aussi mooy bi mu amee possibilité wu génne lettre maanaam def signe de vie mooy bi IBK mm-hmm. jugee foofu. Soumaïla Cissé waaw boo gisee tempo bi. biñ ko jàppee kidnappé ba léegi famille xamul si lu mu ne kenn kenn mënula wax si fi mu ne IBK daanu tey jii parce que da ngay xam ay croix rouge CICR rôle bi ñuy joué hmm. parce que dafa am ñu ko créé loolu ça ça oui bés dina ñëw ba nga xam ne dinañ ci wax mais naka la waa CICR def ba am accès ci Soumaïla ci Soumaïla loo xam ne nii Euh, maliens yi seen bopp amuñu ko. loolu moo jaaxal ñëpp. waaw déet dañoo xamul ah, gis nga géopolitique bi rapport dafa am nuñ ko nase hmm. te dinaa la wax scénario xaw ma na dana génn transition bi dina dem ñu defaat ay su may la de pleines chances d'être le prochain président du Mali. loolu nag moo tax xëy na yenn xel yi jàpp ne. est-ce que du woon complot ak armée bi pour bu ñu fi jëlee IBK moom mu ñëw toog. mais kon quel est l'intérêt bu fekkee militaires yi ñoom ñoo ko kidnappé loo ñu facilité tey. Hmm. dafa am lenn loo xam ne day du neex a dégg. ok na pouvoir IBK. Hmm. doole yi mu amoon yëpp arrêté nañ leen la vérité remonte en surface. Hmm. du ma ni moom la mais li ma jotoon dégg daal dañu ni soreewul si moom am na sax ñuy ni nag ña ko dencoon ci kaavu présidence hmm. wax laa lay wax te ñoo xam ne Maliens yi ñoo koy wax man donc liñ ci mën a jàpp rek mooy euh, Soumaïla la est en otage hmm. te ay du yi ñu doon wax ñoo ko te bu neexee yàlla ci fan yi ñuy génn dina dina parce que doomu Mali la tabar fakal la amuñu luñ ko tuumal jàng na il est jeune il aime son pays il même aime l'Afrique de l'Ouest et waxam c'est ça allait en sens contraire de des intérêts de certaines puissances. Mm-hmm. il fallait le mettre hors d'état de pour pour que référendum bi am. législative yi am. Oh, euh, accord d'Alger yi ñu mun a dugg si. si circuit bi voilà moo tax mu am président CEDEAO yu taxaw ni il faut ñu tegaat IBK président dafa mën nekk noonu. Hmm. mënatul nekk parce que dañuy xam ne dafa am génération Afrique boo xam ne woo oh, la dama man sax laa la wax sama jeune liñ doon accepté ñun. Hmm. booy di dootuñu ko accepté ñun parce que amatuñu perspective. te su may la ci la bokk tëj buntam. ñi ngi toog fi ay richesse suñu doom yi ngi chômer man non te lépp c'est basé sur l'injustice la corruption golo di béy baabu ci tund mënatul nekk loolu d'accord léegi bu ñu dajalee ñeenti coup d'état yi am Mali yow mhm. ban jàngat nga ci def est-ce que am na suite logique euh, ak euh, lan moo wutale xëy na ñeenti situation yooyu dama à chaque fois il s'agissait de de se débarrasser de koo xam ne nii intérêt yi France France ni mu doon gisee moom politique étrangère am ci pays yooyu bokkuloon ak njiit bi na koy gis loolu la rek bu ñu jugee nag comme coup d'état bi ay Maliens ko def dañu ne Malien mel noonu. Mm. duñ jéem a gëstu si li yëngu li yëngatu ko ëpp doole. Mm. coup d'état yi am dans la zone francophone yëpp France moo ne ci gannaaw am na temps yoo xam ne du autorité yi dañuy créer ay mercenaires. ay bopp démarré fii. Mm-hmm. Eh, gis na booy du ñuy gëstu. ay Togo yi ay Bénin yi coup d'état yi fa am yëpp ce des mercenaires payés par le contribuable français. Mm-hmm. ñooy toog lem loxo suñu dirigeant yoo xam ne ñoo bëggoon seen askan. jaxase leen ñoom lu mu mbaa nji man boo ma jege woon ma génne la fi Kwame Nkrumah bés bi mu deewee bañ koy enterré. Mm-hmm. kon Conakry discours ñoom Amilcar Cabral yooyu dañu ni leen kii du cancer moo kore rey te tes frères nga xam ne da ngay xeexal yaa leen bokk dex ngay xeex ak ñoom ñu dem lëngaloo ji ak nasaraan bi pour jam la si diggu gannaaw hmm. te la plupart du temps bu ñu demee ci tubaab bi dañ leen di jox double nationalité boo leen jàppee bëgg dal seen kaw euh, ñoom CICR rek ñoom am na si génn taxaw non droit de l'homme déedéet un traître on le lynche on l'exécute man loolu laa gëm mhm. mënuñu bokk kër may bay pour yëpp naat nga gis sama noon dem lonkaloo ko moom ñoo dugg ci kër gi dafa def safaan ñu bëgg ma ni dégg nga bu ko laal ay droit am loolu mooy la y a droit boo xam ne pour nit ku ñuul la wala droit boo xam ne pour nit ku weex la te yooyu day day meññ léegi mooy am nañu génération boo xam ne ah la ñu doon accepté lañu la suñu bàyyi dama koy wax li suñu euh, bàyyi doon accepté. Mhm. dootuñu ko accepté. kooku dama lay wax lenn. xam nga mhm. Frantz Fanon dafa ni génération bu ci ne moom mooy xam mission am mhm. dox si wala mu trahir ko. suñu suñu suñu maam yi ñi demoon def première guerre mondiale xam nga seen mission moo doon lan. ba ñu defee guerre mondiale xool tuba nasaraan ni mu tuutee parce que foofu la ñu commencé xam nit ku ñuul nit ku weex hmm. tant que ñi ngi leen di bàyyi suñu dëkk bu ñu ñëwee ah, waaw euh, am naa gëléem mi ngi gànnaar doo ko xam hmm. xam nga guerre des xaw yi sutura suñu maam yi demoon nañ fa tabax fa kàlla bi ñu juggu see ñooñu ñoo jëkkee wax doon waxtaan ak seen doom yi mooy suñu bàyyi tey ñi hmm. leen indépendance il faut ñu am parce que ñi gënuñu ñu. yaa ngi dégg wax ci. Mhm. ñoom seen mission dox nañ ko. seen doom yooyu nga xam ne ba ñu jugee ci guerre ba doon nañ leen wax ci seen kàllaama ni tubaab mel. Mhm. ñooñu moo jur les mouvements indépendantistes. ak liñ ci xeex yépp ñu jël indépendance ñenn am pleine euh, am am pleine indépendance am ñoo xam ne nii dañ ko laxaas ak jaar. Mhm. bokk nañ ci. ñoom Senghor accepté ko. Hmm. parce que jàmm la ñu bëggoon. Sékou Touré ko ñu dal si kawam boole kook ay mbokkam histoire di dem ñu si dund ba tey ji troisième vague générationnel bii. Hmm. mooy booy nee nañu ñoom erreur suñu maam yi doon def suñu bàyyi doon def duñ ko cautionné indépendance totale lañu ñu bëgg. Hmm. ci même école yi la ñuy tuuti gisuñul pourquoi ñuy dox fi France ni ñu dox leen foofu même bu dee pax c'est ça le débat actuellement. d'accord au Sénégal et en Afrique de l'Ouest on a une génération boo xam ne tabax fakal la bien portante à ton image toi. Hmm. regarde avec les technologies ñu ngi wax hmm. euh, am na dé na euh, écart d'âge ak man. Hmm. mais à travers tes questions. mais je suis dama ni mais tey jii mën nañ noppali ko ñun yaa ngeen di béy bi hmm. dañ leen waxe jàppale on bout les français d'or duñu li du Jon ja doon wax ñun français yi ñoom ñoo jàpp ni suñu ñaanum indépendance bi dafa ça signifie ñoom suñuy ennemi lañu dangeen eh, déedéet bàyyi leen ni ñun ñu yéen xam nañu que suñuy war dëgg-dëgg c'est de l'histoire ñoom hmm. duñ ko fàtte parce que l'africain n'est pas ingrat hmm. waaye li ñu bëggul mooy il faut ma nekk sa njaate gi. par force. ci kaw njaate gi yaa ngi ko mbir loolu la booy yi nii euh, abana day dañ. te kooku ñu gis loolu nag ngay gis ni euh, ces crises euh, à répétition que ça soit au Sénégal en 2012 tey. Mm. Côte d'Ivoire suba. Guinée gis nañu Alpha Condé clash bi mu fi am ak des journalistes français. Hmm. wax te France moo ko jàppale au pouvoir. donc xam nga dañuy dem ba nga xam ne ñoom aussi euh, intérêt parce que nekk fa pouvoir lungoog France. Hmm. di def ay nduutee mbaay yoo xam ne kii dem parce que les pays ont des intérêts. Hmm. France ku mu jàppale nga nekk président tant que yaa ngi daw si intérêt nice waaye bu gisee ni. yow boo daanoo intérêt am xawtu bala lay def laa wax. jaxase la ak sa peuple jaxase la ak sa askan. Mhm. d'accord léegi ni mu bawee IBK. yow hmm. justement man avenir nga ko gisal ñi ngi wax ne bëgg nañu mu génn dem Émirats arabes unis euh, dégg nañu tamit ay xibaar ñu ne xëy na ñi ngi ñi ngi fexe pour ibeka ñëw Sénégal euh, lan nga ko ah, gisal moom ci situation am tey la sanction mës nga seetaan lu roi lion mhm. l'exil a été un héros un héros mhm. de la nation malienne dañ ko fa dàq ba fan nga exilé woon. Sénégal. waa xam nga Sénégal nag dafa am positionnement xam nga dans la sous région naka la ñu doon wooyee suñu dirigeant après indépendance. Hmm. l'œil du péché. Hmm. nasaraan fu muy toroxale. Hmm. Sénégal yë na ko wala Ivoirien yëg na ko noppi. Sékou Touré bi koy xeex. Sénégalais yëguñu ko woon c'est Houphouët qui jouait euh, ce rôle. de de pêche. d'accord moo tax ñoom la ñuy nii ñoo gën a jege France. Hmm. Sénégal ak France mais xoolal te loolu day jouer suñu relation ak suñuy voisins yi léegi. Hmm. même au sein de l'Union africaine dafa am ñoo ñoo xam yéen mënuñu leen wóolu parce que li di fi leen France def yéen rek ñu takk buum seen di leen xëcc ngeen di sóob di former vous êtes libre alors que vous ne l'êtes pas et ça jette le discrédit le discrédit sur les dirigeants sénégalais panafricains bu ñu taxee nii dañu gëm kii mën a mais gars yi dañ ni ñu mais yéen euh, li ngeen di wax ne méngoog seen jëf. Mm-hmm. kon IBK mën na ñëw Sénégal. Euh, da du ma bett laa wax. Mm. dafa feebar IBK nañ koy ñaanal il a besoin de li tax gars yi tudd Émirats parce que fa la doon defee ses soins quand il était président. Mm-hmm. mais bu fa defee soin dëkk Émirats dëkk Dakar bii moo ko gën. donc parce que bu ñëwee condition ya ñu tegoon Euh, yëg ñu tegoon ATT moom lay am fii hmm. petit palais lañ koy jox donc ko garde rapproché hmm. loolu mooy firndeel que même peuple bi lañu hmm. IBK du jóge Mali mukk ni mi ngi dem Côte d'Ivoire dootul duggati Mali te bu jugee Sénégal gis nga Maliens yi ñoom ñun ñooy saafaraal gis nga sam sa dëkkandoo mooy sa mbokk xam nañu que le peuple sénégalais avec maintenant peut-être dirigeants yi ngi si topp. Hmm. nous on sait dañu taxaw ni sanction embargo nañ ko teg si suuf. Hmm, hmm. dara dootul dugg ñoom Alassane Ouattara wax loolu ñoom Alpha Condé. parce que dañuy ko mbir bëri. mais ñun ça nous ni économiquement te du suñuy aada. te arrangé wu ñu tamit waaw. dañu war jàppale maliens parce que boo leen embargo yi. IBK nga nga embargo. militaires yi nga embargo mhm. koy embargo suñu bokk yi fa nekk yi nga xam ne nii pandémie bee nga fa xeex bee nga fa waaw putain kooku boo ko nee dootuma la jox yàpp dootuma la jox dara waaw kooku tu es complice mhm. te wax nañ la yóbbu te pays d'accord mooy dirigeant yi jël décision boobu mhm. bés dana leen porter plainte yóbbu leen TPI Parce qu'ils sont contraires à, ils vont en sens contraire des désirs de leur peuple. Mmh. de l'homme man gëmuma ko droit des peuples laa gëm. te ko dafa am nuance. Mm-hmm. boo seetee ñenn ñi rek ngay dégg ñuy ni droit des peuples. nasaraan ak ñoom droit de l'homme parce que li si làngantoo dafa bari. Mm-hmm. yoo xam ne bokkul ak cosaan. bokkul ak suñu diina. Mhm. ba loolooy indi débat yëpp ngay gis laïcité ñu ni léegi laïcité sénégalaise moo am mhm. da de dama ni jikko tubaab li bonoon si tubaab yëpp lañ jël. def ay réew bu for yombee sëg a jafe ñun am nañu ay modèle fii tabax fakkal. fa mhm. fakkal. bu weesoo fu ñu war xool. bu dee ñoom ñoom Cheikh Anta Diop a ngi fi. ñoom maam Sëñ Tuubaa a ngi fi. ñoom Baye Niass xoolal Baye Niass ba ki en pleine pandémie kenn wàcc fa liggéey. Mhm. ñëpp ko rafetlu. Mhm. xoolal africain yi affrété ay avion mhm. taalibe dem Medina Baye. ñooñu dañ leen saxal suukar. dañ leen jënd ñooñu. tubaab bi du relayer loolu. parce que day dañ day màggal nit ku ñuul. li ñuy génne kañ suñu tuuxi doona yéen Ebola ak ma ña ña ña ña waaye kenn mënu nax ko. vacances bi ñu jot Afrique la ñëw fii di béggee. ñun ñoo leen di dundal soxna si dama ni bu ñu niwoon tey na ku nekk toog sa continent. Hmm. di nga dégg yuuxu fokk mosula xalaat. te mbas mi wane na ko. Hmm. gis nañ ñun ñëpp ñu ñu doon ni ñoom ñoom ñooy exemple yi gis nañ leen mënuñu régler sax seen bopp. waaw ñoo ci gën a sonn gum de. waaw nde gis nga man man dama ni lii yii yëpp yàlla yàlla mooy libéré doomu aadama. créer situation boo xam ne nii parce que yàlla dafa ni ci alxuraan man damay wax ak ñi nga xam ne dañoo doué de raison. Mm-hmm. borom xel yi ñuy xalaat. man maa ngi fu ne te loolu la wane virus bu tuuti bii xaw yi seen sutura ñoom ñëpp laa wax. Mm-hmm. ñoom ñëpp ba si États-Unis laa wax. ñu jàppee ñu leen di dugal fii peel. Mm-hmm. ñun fii duñ def lool wax naal nañ doomu aadama. mais loolu day wan ni ñoom doomu aadama ak weñ lañ yemale. kooku mooy dëgg bi bu fekkee seen askan ñeme nañ leen def noonu bu ñu ñëwee fii dama ni ñun waxuma ay peel sax lañ ñuy jële <laughs> dañuy taal lakk ñu rek te ah. ak ñoo gaaw ci <laughs> lakk néew ci incinéré <laughs> alors alors Diallo ñu ñëw nag ci euh, gannaaw avenir u IBK tey influence mhm. France ca ca ca Mali euh, noo ko gisee xëy na ginnaaw coup d'état bi ndax militaire yi fa toog euh, mhm. xëy na du ñu wéy ci ndigalu France su Soumaïla Cissé aussi bu fekkee scénario bi nga wax fii léegi moo am France mhm. aussi mi ngi kon tàmbali di ñàkk un peu contrôle lu Mali même si ay soldat wam ñi ngi foofu ba léegi alors ëllëgu France ci Mali gis nga gis nga booy seet saa yu France ñàkkee commencé intérim di wàññeeku fii euh, yëf yi gën a tax Mali wala ay affaires yooyu nga commencé dégg Boko Haram arrêté na euh, attaqué na fii wax ay affaires yooyu dans la stratégie d'occupation d'un pays neutre yooyu dañ koy créer ay jumtuwaay la yoo xam ne foofu lañ lay defee pression ñoom ñooy créer allo. waaw maa ngi lay dégg. ñoom ñooy créer seen djihadiste. Hmm. di ko activer selon leurs intérêts mm-hmm. la prolifération des bandes terroristes au Sahel est à corréler avec la chute de Blaise Compaoré en 2013 ak Diendéré ak Safi mm. ñun dañuy gëstu xam nañ loolu ku mu yeewul mm. ñun panafricain yee nañu loolu xam nañu suñu biir y a des présidents pyromanes et qui aiment jouer après au sapeur-pompier ñun duñu combine bëri hmm. mais je te dis l'avenir du Mali est radieux l'avenir de la CEDEAO des peuples est radieux dinañu obligé suñu président yi nga xam ne ay progressistes lañu ñu ànd ak seen askan pour euh, pour neexu euh, CEDEAO ouest africain yu suba hmm. si loolu la taxaw noonu duñu politique du teesante duñu waaye xam nañu diagnostiqué nañu ñoo indépendance ba léegi. Mm-hmm. xam nañ ko. cancer kenn du ko faj ak mercurochrome da nga koy amputé noppaliku benn yoon. Mm-hmm. booy suffi nga suffi benn yoon. loolu moo dal Rwanda. Mm-hmm. lu tax ñu leen di tudd tey ji nañu foo xam ne ñun sénégalais yi mosuñu koo xam. xeexante machette ak yooyu. Ah. waaye bañ fa jugee. population bi yëpp ñoo tax xoolatuñu tuuti parce que tubaab bee ko fa defoon. gisatuñu lii ñun ñëpp ñooy booloon doo di dóorandoo gis nga Rwanda dafa set ñi ngi développé parce que gis nga dafa am fu ñu jugee am nañ histoire. Mhm. am nañ njiit bu am fayda. tubaab yi respecté nañ lay apparemment. dama la euh, dañ ko xeex pour am ce respect. Mhm. quand tu connais l'histoire du Rwanda et du Burundi ñun ñoo leen tane woon sax. Mhm. fippu nañu parce que dem nañu ba ci biir gis jeu bi nasaraan bi doon def te tey jii tabax fa kàlla macha il faut que ñuy dooleel suñu dirigeants yi. nekk seen gannaaw sa askan nekk sa gannaaw moo tax man gis nga même di ñuy xeex Ablaye Wade man duma jiital président ba pare mm-hmm. dini na dem mm-hmm. te deful loo xam ne nii da nga maam fa dëgg-dëgg ça menace la sécurité nationale mm-hmm. Ablaye Wade li ñu ko doon xeex mooy dévolution monarchique du pouvoir man bokk naa si ñu ko xeex au sein du M23 loolu te toog nañu ma wax ko loolu loo tax ma xeex la mais mosuma d'accord si góor gi na dem non loolu lool on reste républicain comme dama ni man sama position bi may wax ci affaire IBK dafa déggul daaj rek IBK déggal daaj partager le pouvoir tu as la légalité légitimité bi c'est dans la rue bu mm-hmm. partagé woon tas assemblée nationale woo ñoom imam dëkk yëpp ñi leen ñëw leen ñu xool naka leen duñ ko toxo xale ni yëpp du ko ci fekk mais dafa am ñu nekk si gannaaw ñu ko non dëgëral ñu ngi sa gannaaw ah ñi le peuple dinañu gis ñooñu bi mu daanoo ñooñu nañ fa yóbbee force armée ban force armée yéen CEDEAO ba ngeen yu waree yónnee force pour jàppale un pays frère qui a été attaqué mhm. defu leen ko ngeen bëgg a bàyyi ba peuple bi fële pour dog bu mu gàcce ngeen ne ah da ngeen yóbbu troupe léegi ah troupe yi pour kam pour défendre seen wala pour défendre askan wi dafa am débat yoo yoo xam ne. ndax askan bi moom militaire ya fa nekk la àndal. waaw non c'est-à-dire dafa am ay débat au sein de la CEDEAO. Mm. donc am na ci des président progressistes ñoo xam ne nii amuñu complexu bla xoolal nii ñii téye si tànku tubaab yi. Mm. boo xoolee ñoom ñoo dépassé nañ soixante dix ans. IBK ñaata at la am. Mm. Alassane Ouattara Alpha Condé ñaata at la te ku si ne xoolal ba ngay laaj pouvoir bi mais askan wi dala jàppale nga dem ba toog ba duuf tourné leen gannaaw waaye waaye ñu parce que li ñuy fàtte ñoom doole boo am askan wi la ko jox mhm. parce que problème bu amee mënoo rey askan wi yëpp parce que boo leen reyee yëpp mhm. crime de guerre la génocide CPI nga jël te mën na jàmbar di nga rey dix mm-hmm. personnes quinze personnes waaye bu ñu la jàppee parce que IBK looloo tax. Mm-hmm. Euh, bàyyi ko day metti parce que y a eu des répressions féroces à Bamako. Mmh. Et même on a cité des mercenaires yoo xam ne dañ leen fa dugal. pour mm-hmm. ñu def le sale boulot. mës nañ ko wax au Sénégal fii yoo xam ne yenn président yii nii nañ fa yónnee armée ñoom ñooy créé ay jox leen gànnaay def leen jàppale sama copain bi loolu day dakk Afrique. d'accord jërëjëf Alpha Waly eh, ci xibaar yépp ak eh, waxtaan bu leer bi macha allah amoon nañu mbégte lool dalal ci plateau Demb ak Tay. ah yéen yéen dama ni seen rajo suus mba mbañ si ñun la bokk. Mm-hmm. dañ koy jàppale. ku ci nekk xam nañ ko démb. Mm-hmm. xam nañ li ñuy xeex. Mm-hmm. ku ci nekk bu ku si nekk defee nii. bay si sa waaxe suñu gaalu Sénégal bi <laughs> tabaarkalla macha allah. jërëjëf Alpha Wally Diallo ah. ñu ngi lay gërëm bu ah. baax fàttali ni yow expert euh, en relation internationale nga di def itam wàllu recherche sa xel màcc lool ci Afrique ñu doon waxtaanee tey Mali ak coup d'état yi fa jot am euh, surtout bi mujj euh, te daaneel nguuru IBK ñu ngi lay gërëm amoon mbégte dalal ci démb ak tey gërëm Diaw Diallo mi nekkoon ci machine bi Fatou Thiam nga moo fare woon ci kàddu gi ñu leen di dig daje beneen dimanche incha allah waxtaanee leneen ak keneen ñu jàmm